pour man chaque jour dañoo war a comme opposition bi pouvoir bi ñom soxla woon nañ dara am nañ ko li tay fiñu ñu toll askan yi nga xamante gu yaram askan mo gën élection. D'accord, d'accord, d' honorable comme kon buñu mënu la a def élection ñu def magal Touba. oui magal Touba si boppam ki nga xam moy Khalif général des mourides si mën jël ay matuwaay ndax bokku ñom ñaar ndax li <laughs> askan yi moy and ak nguur gi opposition bi d'accord lenn ki nga xam moo nekk si kaw rek moo si mën a jël matuwaayam lu mu si wax rek loolu la ñuy def ñun ay taalibe lañ. d'accord voilà. non xanaa loolu nag tey tey leen ñëw ci yow bul fàtte ni aussi am na loo fi waxoon ci fête religieuse ci événement religieux yi. ca Porokhane est-ce que déggoon nga ma tudd Magal. non événement religieux yi. waaw jëm Porokhane. waaw mais dama ni ba muy wax loolu. est-ce que déggoon nga ma tudd Magal. non mais boobu aussi tam taalibe nga woon ndax ne nga ndigal gi ci moom rek la war a. mais xam nga man dama lay faral di wax te da nga mujj rek ci dem jéggulu après. non xam nga xam nga loo gis nekk dafa am lu ko waral. waaw man kenn mënu ma jaxase ak sëñ Muntaxa ndax mooy sama waajur moo ma jur mhm. moo ma jàngal moo ma yar mhm. lu nekk si man moo ko si def moom la yóbbu Daaru Minam Saloum boole ma ak doomu sëriñ Koso ñu nekk Daaru Minam Saloum mhm. kon xam naa ko baax a baax dafa am ñu leen doon jéem a jaxase dafa am ñoo xam ñoo doon jéem a jaxase pour que wànni Cheikh Abdou wéyewul diggal wala Cheikh Abdou nanga ndax li taxoon mooy la ma incarné tuuba ñu bëgg ma jaxase ak waa Touba ña ko doon def tey gàcc la am ba ma waree def déclaration si loolu defoon naa ko conséquences yi nga xam ne tey moo si am ku ne gis na ko lii li ma si wax lu wér la mooy xalifa général des mourides màggalu Serigne mel na moom kese mel na moom kot mel na moom dong moo si am sañ suñul wax waaw wala déet lu mu wax ànd nañ si. voilà foofu laa loolu moom amoo ci xalaat. aw ma ci xalaat. Mhm. lu mu wax d' accord na si. d' ñi ñi ngi doon wax ci ci local yi euh, nga ni euh, dañ ko war a dàq. ku ku mën a dàq local yi war a mën a dàq mm, législative wala sax présidentielle kon. yaakaar nga ne mu demee ñaar da xam nga tax. mooy est ce que maanaam da ngaa jàpp ne fii ba 2022 feebar du fi jeex mën na jeex. man fu may sukkandiku mooy askan wi nga xamante ñoo war a dem wote ji pour war a feebar wala tasaare feebar bi ndax boo xoolee France la gën a yokk feebar bi yëpp mooy élection yi nga xam defoon na ko si deuxième tour bi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais est ce que ñun dañuy bàyyi suñu askan na ko kon dama jappal il faut que ñu sooralé askan woowu non askan woowu man mom la nekkal man ma yor batu askan wi askan wi laay kaasal mooy élection yi mënuñu ko def pour askan yu manam dem di yóbbu feebar bi diko tassari ci si réew mi hmm. pour man na ñu dax élection yi def ko tuuti fii 2021 wala après décembre 2021 bi ñu jéem organiser élection fekk na mais mais honorable est-ce que yakar nga euh, ni feebar bi aussi comme ni ko président waxé won waruñu mën a jàng pour dundu ak ak feebar bi nak mëna continuer activité yi yakar loolu non xam nga li problème moy président de la république dafa bayyi aw askanam ni leen feebar baa ngi noonu te kenn ko nekk xam ne ngay doxale <laughs> askan woowu nag ñu tey ñoo nekk ci ay jafe-jafe pour di dund feebar bi di faatu di dund feebar bi di gën di yokk situation bi mel yépp loolu moo ko waral. <laughs> jàpp naa ni matuwaay yi nga xam moom lañ jëloon bi nga xam ñu ngi def loi d'adaptation ci article 69 bi. <laughs> jamono yi la jaaru woon. tey ba mu waxee responsable ya mu waroon a wax jël taxaw wax la ma war a wax ñëpp yëg xam li mu war a wax. Mm-hmm. heure bi la jaaroon pour ñu jël ko. mais c'est mm-hmm. dommage jëluñu ko. Mm-hmm. man képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci réew mi foo man di nekk lépp loo xamante lu war a jël ci askan wi la muy intérêt réew mi loolu laay défendre. mooy situation bii nii pour man du situation bu baax bu mu war a def élection. opposition bi nag ñoom amoon nañ sañ sañ dàq élection yi tàgguwul population bi tàgguwul woon leen kon population bi tey man maay taxaw seen place pour wax que ni ñoom nakkuuru ju pour ku ñu def élection yi mois de mars 2021

président Macky Sall dafa ñu recevoir wax li bëgg. Mhm. wax ko ko jox ñu ñëpp ñu d'accord si jox ko mille milliards. Mhm. mu jël 1000 milliards jël si maanaam la sa ëpp solo gën saa bari mu toll 69 milliards pour jébbal ko Goram. Mhm. jébbal 60. jébbal ko ma Mansour Faye jox di ministre bi nga xam ne moo yore équité territoriale te équité territoriale ba mat pour man. ñun waa gis ñu suñu bopp ndax tolloolu wuñu dañuy gën gën a lee tey boo gisee tey naan li mu yor bokk ci équité territoriale waaw bokk ci la bokk laa wax mais tey boo xoolee tey jii bu fekkoon dangay ngay wax rek dëgg te yàlla tax waa gisu leen ci seen bopp wala wala mu di ko def ngir liggéey réew mi mhm. mbirum dund mi sos mi ngi waroon dem ci euh, euh, ci mbirum ministre de la santé la waroon def na moo yor mbirum social mhm. mais mu jéggi ko dem action sociale mhm. foofu la waroon a dem mu jox ko Mansour man bi ñu ko ko joxee la nga xam moom laa ci war a def mooy ni ngeen ko ko joxee. mais moom tam moo yor équité sociale. waaw mais da dama ni dama may mais man li ma jàpp rek laa la wax. Mhm. ban ko ko joxee la nga xam moom laa gis ñu doxalee ko baaxul am naa sañ-sañu li nga xam moom la ma assemblée nationale may. Mhm. ci article bi nga xamante ni mooy article 94. Mhm. mu wax ni bépp député am nga sañ-sañu def question orale article 95 question actualité article 96 question écrite. Mhm. benn bu nekk def naa ko pour jagleel ko ministère yi. kan ak Abdoulaye Diouf Sarr dama ko def question actuelle pour mu ñëw assemblée nationale pour leeral. Mhm. su Faye question écrite laa ko def. Amadou ma def question orale ndax kenn ku nekk am na loo yor pour askan wi war a mën a xam loolu nga yor fan nga ko dugal. Mhm. ndax tey bu fekkee la jox ministre affaires étrangères lu toll si douze milliards virgule cinq. nga ne jox nga ko diaspora yi mais war nañu annexe yi nit ñi ngi ko jox seen i ak seen sant ak dëkk ñu indi ko assemblée nationale. tey bu fekkente ne jënd nañ ceeb bi nangami milliards la transport nangam la ñii leen ko jox war nañu xam ñooñu ko jox ñan la ak fu ñu jënd ko ay facture indi ko assemblée nationale pour leeral ko bu fekkee ne ministre de la santé la jox nañ ko maanaam xaalis bi toll noonu tey boo gisee hôpital dala jàmm nit ñaa ngi garab médecins yi maanaam amul leen faje amul leen fay tey kenn xam ne ne tey ji maanaam population bi ñooy mhm. boobu ñu ko jox mu jënd ko ceeb tey boo dikkee Touba mhm. am na ñoo xamante ne man maa leen may ñaar fukki junni ñu fay transport bi jëlee ceeb bi ci depp bi yóbbu ko seen dëkk. Mhm. est loolu jaaroon na. Mhm. ndimbal si président Macky Sall jublu woon est-ce que ndimbal loolu maanaam àgg si askan wi ñun li nga xam moom la ma yoon may ba ma ko déposé léegi ñetti weer la déposé naa ko table président assemblée nationale président assemblée nationale bind na na si mais ministre yi war a ñëw tontu ñu war a ñëw leeral nangu ñoo mhm. ma yoon may chaque jour koy def mais nag ñi nga xam ñoo war di seen district seen matuwaay bii la moment wu nañu nañu nañu xool euh, fu ñu def xaalis bi est-ce que ñu pareegul

mooy ñun ko jox waruñu leen ko jox moom mi ko joxe est ce que ko joxe jaar na yoon kan moo si jot est ce que est ce que sax réellement taux bi ñu waxoon ak tonnage bi ñu waxoon ni dem na est ce que boobu dem na. mais am na ñu jox ba yaa leen jox lu ñu passé pour dem. na dama ni non dama ni am na ñoo xam ni. Mhm. ci koñ yi nekk Touba wax nañ leen maanaam quotas bi ngeen am ñëw leen ngeen jël si ko mun ñu dem jëli ko si dépôt ba man maa leen jox xaalis ñu dem jëli ko mais est loolu ñëpp am nan mhm. mhm. am na ñoo xam dañoo jëli ceeb amuñu diw amuñu saabu amuñu leneen loolu dafa tardé woon suukar bi ñëwutoon. kon manquement yooyu kenn ko dénk rek moo war a ñëw taxaw si kanamu askan wi muy kii ñëpp représenté pencum ndawu réew mi wax ne li leen kat lii nga xam ne moom lañ ma dénkoon lii moo ci dem fii lii moo ci dem fii lii moo dem fii ba pare nan ngay mën a séddale dundu bu toll noonu. Mhm. député yi nekk si département yooyu noonu boole wóolu la si. opposition bi. Mhm.

man ak ñi mu war a àndal bu fekkee ne dafay ñëw foofu si askan wi di leen jox war nañoo mën a woo ñun ñi nga xam ñoo ay député war a xam ëllëg lan la ñuy rendre compte hmm. mais boolewuñu si kon mu leer na ne am na loo xamante ne tey bëggul ñu xam ko hmm. voilà d'accord euh, wax nga toujours yaa ngi wax ni gagné Touba gagné Touba euh, ci ci wàllu ndombo tànk ci wàllu politique lan nga fa mën a xaar pour mën ko gagné non bari na conseil département bi bii ñoo dama koy gagné nekk naa député nekk membre conseil département nekk président commission euh, habitat nekk vice président commission loi assemblée nationale. maire bi euh, euh, mom mais maire bi damay nekk candidat waxna ci khalifa ba paré damay nekk candidat serigne bi kim koy jox ku wara taxawul askan touba lay don mais kiko yor tay problème international, bi fa am yépp éclairage public publique bi tey jafe yi am yépp mom moko waral. ndax amul benn compétence boo xam def na ko si touba boo xamante wala ko juróom-ñaari at tey boo demee buntu maire day taa juróom-ñaari at boo demee arrondissement Ndaam day taa jumaa ji day taa mais lan la def. d'accord ba nga xam sëriñ bi bañ na ko ba jël léegi liggéeyu assainissement Touba yëpp jox ko Touba si kanam bu fekkoon liggéeyu maire la mu war a def na ko état la a def na ma bëgg jël continuer sama liggéey ndax man mi wax ak yow nekkoon naa ci liste bi pour que ma dugg si conseil bi mais ñoom ñoo ma xeex mu ñëwee si biir conseil municipal bu Touba bi xëy na dinaa gis wala may révélé yoo xamante ni comme lii rek fu ma nekk askan wi tànn ma dinaa wax moo tax bi ma xamante ni génn ma ci liste Touba bi nga xam ne liste benn boo ko yaakaar la moom lañ tànn man dama def déclaration. wax ni askan wi bu ñu wote bopp fas bi. nañu wote bulletin balan boobu man maa portoon bulletin blanc bulletin blanc moo gagné Touba. ba sax euh, Serigne Sidi Mokhtar yàlla na yàlla yokk ay leeram ay nit demoon fu ñoom ni ko Cheikh Abdou dafa wedd si ndigal fekk loolu lépp si waa benn boo yaakaar kon man jàpp naa ne li mu war a taxaw chaque jour bu jotee damay taxaw ci kanam yi nga xam ne fa laa a taxawee. man mu pare pour que maanaam jël mairie Touba jël conseil département bu jëree sama bàyyi assemblée bàyyi assemblée des Touba liggéeyal Touba ndax moo ma ñor te yéen bi ma am pour accompagner xalif si Touba yaakaar naa yéen boobu war naa ko mën a àggale. dafa am loo wax léegi ni waxtaan muy sa candidature ci mairie ba la la ci wax. ban àgg si la ma mhm. ci eggee choix am nekk ci keneen. ma ànd sax moom lu sëñ bi nekk soo am rek d'accord na si. d'accord man taalibe la accord waaw loolu loolu loolu am na loolu am na solo euh, soo soo gisee nag.